C'est du jour. La balle me donne 10 secondes voilà ton cousin est battu. ton cousin a battu. Keifa encore ton cousin vous fatiguez finalement la famille vous faites de belles choses quoi. vraiment on sait on sait c'est vraiment vous faites de belles choses vraiment c'est la famille quoi. <laughs> mais tu ne portes bien pas. Il y a une valoriser de création Marie-Louise bul a dañuy def mode du jour. look of the day. i ñax man Ndiaye li ma naqari ci yow mooy fan yi yére boo sol daal bi danga koy niroo leen lii métti na ma quand même Mamadou Ndiaye qu'est-ce que c'est ah, man man nga koy wax <laughs> bu ko defee ngay caraxu ñëw Ndiaye lii de ku génn ci fii nooree nii nooree nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii këram laay yebal librairie yi ne nañuy dem foofu. da ngay tooñ da ngay Marie Louise. Marie Louise sa sañ sa baax na. tu es jolie ku la sañ seel. Leiba Ba. Ndeye Ba li fi def moo fi jaar. or yi aaroon na lii. boutique Strass ñoo fi jolie ñoom Vanessa ñoom Ali ñoom. j'adore ces chaussures. elles sont magnifiques.

voilà joli kaay ma dem ci Kebs après nga jël ma ñu wane sunu niroole Kebs ku la sañseel tey. laay tey Mauritanie laa dem. dem nga Mauritanie kay. maa ngi la dégg yaa ngi nuyu waa Mauritanie rek. Mauritanie ma fekk si tey. sañse nga le bon choix moo def lii bijou de tête yi. def malfa bi voilà te malfa bi day ànd ak euh, jiitalam. jupe ak lii war nañ koo am ci koor gi de. waaw kay nii daal la def. ah c'est joli. léegi nag laxaat xewal ñëw ci ay lam yu baax. bijou VIP gold. waaw kay ñëw ci lii. c'est joli. moo jaar fii c'est joli. soo soo mbokk hôtesse bi. li ma ci kii ñu ngi ci mode bi. léegi yow da ngaa ma verse tourneel nii. tourneel nii nañ échanger place. teer rek yow. maa ngi ñoo hôtesse tey man tam verre laa def. naa ñoo jël si bàyyi moo du ma sa tànk ba sa yel moo travaillé nii xoolal nii.

pour la coiffure salon la make-up finalement. bah déjà voilà qu'on qu'on les du jour demain noir avec pour de l'eau jibi kii yaa ngi leen ñu foto nga foto la ak yëpp ci look of the day bi ay ñoom doon cooy dadi yow tamit daa mel dañ lay sañseel pour ngay ñëw di superviser chaque jour ku def li ku def li ku dem la ku la sañseel mais li gën a grand mooy xoolal bul daal xam nga couleur yi ku leen mën a boole eh, foog nga ñeme ko et kurus ah, personnalisé la baal leen ma baal leen ma maa ngi ma xool ñëw. <laughs> c'est joli. baal naa leen ngeen photo. waa gis nga.